dañoo diff ci dans sur toute leur chaîne dañoo diffuser inauguration BRT bi. Mm-hmm. te xamuñu ne loolu day tax sax waaw hmm? day tax duñu duñu kii. dégg nag ce qui s'est passé dégg ko kon kon invité wuñu la. man jotuma invitation. ak li ñu def sa commune yëpp ci ay. ci ay gis naa ni sama séisme bi dem nañu mais man jotuma personnellement invitation. pour sa ñan lañ sa ñan ñoo dem. kii cellule comité comité bi ñu taxawal ci commune pour suivre les travaux du. comité boobu maire bi piloté wu ko. si mairie bi moo ko piloté xëy ñoom ñoo jot information bi xam nañ invité ou bien ñoo dem seen initiative bopp mais moi en tant que maire jotuma invitation pour fekk ko moi je suis de l'opposition mais je suis très républicain aussi quand même waaw j'aime bien morceau titi boobu fu ñu la woowul bu fa dem bu fa dem la boobu mais bir man gis naa gis naa Ahmed Aïdara j'ai même vu le maire de Grand Yoff fa lañ ko doon lancé ci commune hmm? mais le maire de Grand Yoff il fait pas oui il est taxaw Sénégal c'est un jeune frère. dañ ko invité certainement dañ fu ñu la wool doo fa dem surtout. waaw fu ñu doo fa dem RTS yéen da ngeen jëloon monopole bi démb 30 bi ñoom <laughs> Paar ko wax. ngeen def may leen nit ñi au moins rajo yi ñu wax. mais pour autant je je félicite l'État du Sénégal par rapport vraiment aux BRT. Mhm. même s'il y a encore à dire et à redire sur beaucoup de choses beaucoup d'aspects parce que sur impact transport bi. c'est à saluer mais am na ay désagréments yu bëri yu muy créer en annexe tali démocratique dafa xam ba nga xam ni donc je pense qu'il faut améliorer surtout seen côté boobu yéen surtout suñu côté boobu et puis je ne peux pas comprendre que ñu def BRT bi nii mu bokk ci mobilier urbain Dakar Teral Dakar et à côté ngay gis ay kiosque ay n'importe quoi sur bordeaux ouais, ouais. c'est inacceptable et ça ça relève de l'autorité administrative mm-hmm. les collectivités territoriales les maires mënuñu si mm-hmm. il faut que état j'ai entendu le président dire que forces armées yeeg police le la dénk mbir mi mais foog ñu dem ba à ce niveau là aussi lépp li nga xam ni ça ne correspond pas oui vraiment à au mobilier urbain Dakar ñu dind ko foofu et créer ay espaces yoo xam ñooñu mën nañ fa dem surtout créer des espaces. mais c'est ça parce que moi je vois tout le temps bu ñu dindee ay nit nit boo ko yëkkatee fii te joxuloo ko leneen. oui day dellu si waat foofu. la preuve les les du doyen là ñu mécaniciens yi. mais ba léegi am na ñoom ne foofu la dëkk fa la fanaan SDF. SDF lañ ñu famille yu amul ngeen benn. di fóot yi di am benn vue panoramique de de la ville. donc gis lu rafet. dafa war a rafet quoi. dafa war a rafet.